assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh suñ sëriñ ñu ngi lay siyaar bu baax baax di la wax ne bésub suñ tubaab bi nan ko ko wa mm, wa alaykum assalam ñoo ngi nuyu ñep di leen ziar di leen balax te di leen balu xana xanaa rek mbégte rek comme ni ka sang bi daan waxe rek eh, bu bis bu euh na ñep na ma ñep sante la suñu borom donc kon ñun dañuy and ci cant gi rek ka ak suñu mbokki mourid bi ndax doon lo xamanteni bi doonut yëfi murid yi kese képp kuy jullit rek yaa ngi ci biir kon nañu ànd sant rek sant rek jaajëf ndeysaan jërëjëf wa rahmatullah murid ñu ngi lay xaare bu baax di xaare sa cameraman bi di rafetul liggéey bi waaw di wax ni liggéey moom sant rek magal moom waaw yokkute la maanaam bàyyi suñu yitte ñun ñëpp ñëw nekkal ci sëriñ bi waaw xam nañ ni ñun ñëpp yàgg nañu ko def sagay at ñu leen ko daan defee mais ku nekk gis nga sa bopp yokkute waaw ndax màggal moom lu ci waaye def ren bu déwénee da ngay mel lu ko waa ñun moom ñi ngi santaar rek waaw di ñaan sëriñ bi nangul ñu sunu màggal ñu fu nekk ñëpp waaw képp ku nekk soxla bi nga fi indi saa borom nangu ko waaw dafa lay taw féex waaw képp ku nga xam ne tamit bëgg nga ko teewee nekk ci àll yi mënoo ko te bu déwénee suñu borom dafa lay xéewal ba nga koy teewee sak at waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax nag demaan mbégte bu baax waaw di char jërëjëf jërëjëf jërëjëf déwrin kàddu am na solo ñu ngi ñaan ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall barke xaadimal Moustapha ah, aaju fu waay indi yàlla na sama borom dafa fajo barke maam Cheikh Ibrahima Fall ñu jiitu su këru dëgg ñu ngi ñaan suñu borom xare na àjjana barke maam Cheikh Ibrahima Fall ñaan suñu borom génnal li fa barke maam Cheikh Ibrahima Fall sant nañ bu baax a baax a baax bar bi daa xaw a dee na ñu ngi kiy jégalu bi sëñ Tuubaa daal rek mbégte jàngaar xoraan yaa nga duruus xasida joxe aw ñam nit ñi xewul bu baax ak mbégte mbégte mbégte rek barke maam Cheikh loolu rek lañ ci yëg amul leneen. santale ko sëriñ bi yàlla. noonu la ko waxee. kon ñu ngi ko ñu ngi ci. ci ay xéewal. ak jàng alxuraan jàng xasida. parce que maam Cheikh Rafa. jërëjëf sëñ eh, sëñ Saliou kàddu yi am na solo kon suñ moor nan feggool suñ wet suñ moor di la laaj ba suñ tubaab bi nan ko ko yëgee ndeysaan moom ndeysaan moom jàmbaar la moom tamit jàmbaar la barke suñ kon suñ moor da laaj nan nga yëgee ba suuf suñ tubaab bi. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur ñi ngi sant Serigne Touba Khadim Rasoul mi nga xam ni moo waral bis bi di sant mbokki taalibe yi fi nekk yëpp rawatina Baye Fall yi ku ci mel ni sëñ Saliou ku ci mel ni jëwriñ yeeg ñëpp rek ñu ngi leen di sant bu baax a baax wax dëgg yàlla am na mbégte lool nag waaw ba ñu dellu si waatee taxaw fii ci màggalu Serigne tubaak yi yàlla may ñu fekke ko kon ñu ngi ciy sant bu baax a baax wax dëgg yàlla mbégte la moo xamante bi berndal yi doy na lekk gi doy na lépp doy na wax dëgg yàlla jàng alxuraan xasida yi wax dëgg yàlla ni ko gaa yu baax yi daan defee rek defee nañ ko ren kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di ñaanal gaa yi tawfeex rek di ñaanal ñoom Saliou ak ñoom Aziz gaa yi ko jiite yëpp rek ak jëwriñ yi borom yàggal leen ci seen kanam ñu yàgg koo teewe barke Seydina Mohamed yéen wax dëgg yàlla sëñ Fallou ñu ngi lay ñaanal suñu borom yàlla defal leen jàmm defal leen tawfeex ah Tivaouane TV gi tamit ñu ngi yàlla yokk ko ba mu nekk ay télé télé télé barke Seydina Mohamed di mi nga xam ne moo yor caméra bi ak mbokki taalibe yi fi taxaw yëpp ñu ngi leen di ziare di leen wax dëgg yàlla di kontaan bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf ndeysaan jërëjëf suñ Mor kàddu am na solo macha allah euh, ñi ngi ñaan si doole suñ Tuubaa ak Cheikh Ibra Fall yàlla sa borom yokk barke maam Seera aaju ba fi ni ñi ngi ñaan suñ Tuubaa. waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu. Baye Fall ñu ngi lay ziare bu baax di la jox sa wàccuwaay di ziare mbokk bi yëpp euh, di ziare jëwrinu jëwrinu daayira bi di ki di jëwriñu Baye Fall waaw di leen sant sant gu am fu mu tàmbule ci amul fu mu yem di wax nii lépp taw feex na daal di ñaan rek suñ boroom defal ñu fekk koy at yu bëree baree bëri kenn bañ a manqué te bu déwénee ñu man lu ko ëpp ñu man lu ëpp li nga xam ne moom lañ moom li li ñuy def nii ñaan borom bi dajale noo ngërëmal sëñ bi te defal ñu ak jekku ndigal waaw ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall. waaw kon nag xam naa. wax ji moom du mën a bari ndax xot. waaw maaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatu ñu ngi leen di siyaar bépp di siyaar mbokkum taala bi yëpp siyaar suñu mbokk murid yëpp tamit Baye faal yi tamit siyaar kulluhum rek. leen ñaanal baax a baax ci bisu tedd bi waaw bisu ku tedd ki moom comme saa su ne rek ni koy defee at mu ne rek waaw gën a yokk gën a dëgg gën a dëgër. waaw saa su ne di liggéeyal sëñ bi rek te bañ cee tay bañ cee am benn xel ñaar bu sëñ bi wootee rek mu mel ne lépp luñ jàpp dañ koy bàyyi rek ngir yëfi sëriñ Touba saa su ne ña nga ca te di ñaan yàlla suñu borom mu gën ñoo taxaw ci barkeb Cheikhul Khadim barkeb safar gi saa su ne ñu koy gën di man di ko gën di waaw di ko gën di jekku rek comme na mu demee woon ca ba ñu ñëw ba léegi nii rek bu soobee yàlla nekk ca rek ba ca kanam kanam incha allah ñu ngi siyaar ñëpp nag jërëjëf sëñ Mañang macha allah kàddu yi am na solo te lépp rafet na ñu ngi ñaan si doole sëñ Touba aaju fu yaay ni yàlla na faju barke maam Cheikh Ibrahima Fall. waaw di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh di wax alhamdulilahi rabbil alamin wa salaam wa salaam ala mursalin walhamdulilahi rabbil alamin waaw dem ak mbégte tamit mm, di ñaanal Cheikh Mountakha Bassirou yàlla na fi yàgg te wér xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall bi yàlla na fi yàgg lool te wér moom ànd ak gër waaw di wax kontaan nañ lool de barke Sëñ Tuubaa kontaan nañ lool lool waaw si mën a gaa yëpp ñu ko mënee ren yàlla nañ ko mënee dën barke sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra li ngay def nii yàlla na dem ba sa sët yi sët di la ko defal ak ñëpp ak Cheikh Ibra jërëjëf ndeysaan jërëjëf si maam Cheikh ndeysaan kàddu am na solo jërëjëf ndeysaan moom ndeysaan moom jóori la te jàmbaar la si daayira maam Cheikh Ibrahima Fall bi moom ndeysaan si ab si katkat la ñu ngi ñaan doori si la asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ waaw mbokk taalibe yi mbokk jullit ji maa ngi leen di ziare ñëpp waaw di leen xamal ni moom bisub tey moom bisu li yëg moom lépp mënuñu ko wax xanaa mbégte rek ak banneex ndax bisub suñu mag moom su accès ñun dañuy gën a bég di ju safar lañu wax su commencé safar su commencé rek dañuy bég ba bis ba ndax suñ bee ko wax suñ mooni sama sama bis bi su deesitee na ngeen ma ko waajalal berne leen ma ko fonka leen ma ko ñu fonk ko lool amuñu lu moom nag sa nag tayam ju day gàccal ëllëgam tayam ju ne day gàccal démbam saa su ne su accès dañuy bég lool kontaan nañ lool nag moom wax dëgg yàlla ndax fi ñu koy defee si Brésil ba ñu fi ñëwee ba léegi mën na bu ne yokk wax yàlla am na xam ne dañuy jóge ba Sénégal di ko def see Brésil ndax lan ndax lan ko ak ak sart ko teg mu nekk sart am solo waa solo lool bég lool nag si jëriñ ji toog ak ñun nii ndax daal day day bàyyi faal pire nag waaw suñu suñu laaj dañ sa war a wax waaw kontaan nañ loolu nag wax dëgg yàlla di leen ziare wér nag di dalal ñëpp nag bëgg ñëpp teew si bis bi bëgg rek nag bëgg bëgg lépp am mbégte la waaw jërë ngeen jëf waay. ndeysaan jërëjëf euh, jërëjëf ndeysaan kàddu am na solo ñu ngi ñaan si doole suñu tubaak ak Cheikh Ibra aaju bu fa waay ni yàlla na fa jo barke maam Cheikh Ibrahima Fall. di ziar mbokk taalibe bi yëpp ndokkeel mboolem jullit ci bis bu màgg bi bisu màggal Touba bisu mbégte. di ñaan saa borom def ñu fekk koy ati at te lépp luñ si jaamu yàlla saa borom ñu si doole Cheikh waaw waaw. jërëjëf Mouhamadou Lamine ndeysaan kàddu am na solo jërëjëf jërëjëf Fall Ndiaga ñu ngi ñaan doole suñu Tuubaa ah ji fu waay indi yàlla na fajoo barke maam Cheikh Ibrahima Fall kon dañuy dem jàkkaaroo ko suñu jëriñ euh, Cheikh Moustapha màggal gi nan ko yëgee. yokk ba yëg rek yàlla dolli xéewali at mu ñëw gën a yàlla bàyyi fi ñëpp rek barkis Ahmadou Bamba Xaadim jërëjëf seex Moustapha kàddu yi am na solo ñu ngi ñaan doole suñu baa a ju bi fi waay indi yàlla na fa jo barke maam Cheikh Ibrahima Fall ndeysaan kon dañuy jàllaat suñu mbokk yi yeneen jëwri yi asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di siyaar di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Fall waa liggéey bi comme niñ ko gisee nii rek Baye Fall yaa ngi ci liggéey bi def nañ fay ndékki di préparer añi ndekki moom danaka daa kawe ba gars yi daanaka fi mu toll talagun ko moo tax instant bii nii dañoo taxaw di xaar pour mën a muusal yàpp reer bi pour waajal yàpp wi waaw maam daal ni ko muriti Sëñ Tuubaa yi rek noonu lañ koy defee ñun Baay Faal yi nag moom dañoo jaayante comme kay Baay Faal lan waaw moo tax daanaka dañuy nekk si liggéey bi rek ba nga xamante ni màggalug sëñ Bàmba gi du sooxe di ñaan ci barke borom Tuubaa lépp luñ fi sàkku yàlla na nu ko sëriñ bi nangul yàlla na nu sëriñ bi nangul sunu màggal barke maam Cheikh Rafal jaajëf ndeysaan jërëjëf sëñ Dame Mbaye kàddu am na solo ndeysaan moom mi jàmbaari si jàmbaar la barke sëñ Tuubaa si jàmbaari la bokk ndeysaan liggéey bu ñëw rek maanaam da si da feeñ bu baax baax kon ñi ngi ñaan doolee maam Cheikh Ibrahima Fall barke Cheikh Ibra sama borom yokku la ba nga yokk barke